cadre boobu lañ ñëwoon seet si suñu bokk ñu dalal ñu dalal bu yaatu fu rafet ñu waxtaan ci biirum réew mi waxtaan ci li nga xam ne moom la bokk di xeex ñun bokk le leen rek moo ñu utale ñun mooy ñun dañoo décider def parti politique pour jàpp ni sa xalaat lu mu rafet rafet sa gis nu mu rafet rafet soo toogul fa ñuy jëlee décision yi ba mun a appliquer loolu du ma du ma ne amul njariñ waaye dina xaw a na ñoom dañoo jàpp ni seen rôle du dem conquérir nguur gi waaye seen mooy am taxawaay boo xam ne ëllëg sax su fekkee Ousmane Sonko fi ne woon ndax def na naka su dul noonu dañuy jàmmarloo moom dénoncé ni lii du yoon waaye soo génnee loolu leneen lépp ñoo ko bokk mooy li ñuy xeex ngir moomaat suñu bopp ñëpp xam nañ ñun bañ nañ ba patriote lañu lañu wooye suñu bopp li ñu gën patriote mooy koo xam ne dafa bëgg réewam jiite réewam ci lu ne la ñuy xeex ñun te mu ñor ñu torop mooy noot gi ñu noot ba tey suñu réew sax moomatuñu ko mooy suñu alal réew soo jëlee or wala pétrole wala zircon wala gaz wala nga jël géej gi li ci nekk jën wala suuf si nga xam ne ñu ngi koy nangu ci loxo nit ñi suñu alal réew sax moomatuñu ko ñun loolu moo ñu biir mooy moo gën a fas ci suñu action politique moo tax luñ lu ñu daj ci politique loolu ñu ko àndil kon loolu moom moo ñu boole ñun te loolu moo ëpp solo ci li ñuy def après kii mun a nekk parti politique kii nekk mouvement social mais loolu amu ci solo